loolu loolu lañ fal faluñu président Diomaye de hmm. faluñu Ousmane Sonko. mais bi ñu demee ci urne yi photo euh, carte Diomaye moo fa nekk. ma ne ma ne 2024 moo fa nekk. ma ne Ousmane Sonko nekk fa woon. Diomaye faluñu ko. Hmm. faluñu Sonko. Hmm. Sonko mooy Diomaye la ñu fal. mais dans une république on a besoin qu'un seul euh, président. justement moo tax nga dugal benn bulletin ci urne bi. c'est ça le caractère de la république mais le caractère politique de la question président Diomaye deuxième fois muy dem élection deuxième première élection bi mu demoon jaga ñaaw la l'élection locale dafa président Diomaye n'a jamais gagné de bureau de vote président Diomaye n'a jamais gagné une commune waxatuma le département waxatuma la région Quand s'il gagne une nation au premier tour à 54 c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier la particularité c'est que son moo ko gagné. joxoñu ko yem ci daf ko joxoñ a dugg ci biir gagné, bi ko le président Diomaye s'est engagé en politique depuis 2014 Reste politique depuis 2020 jusqu'à 2024 c'est combien d'années 10 ans 10 ans pour le pour président Sonko au pouvoir président Sonko 10 jours la campagne de jox ko réew l'engagement la détermination de euh, Ousmane Sonko je ne pense pas que ni le président Diomaye peut gagner un bureau de vote au Sénégal et d'ailleurs tous les 19 candidats je dis pas tout yi amone ci na Sonko la ndax Sonko bu bi sax mu alors donc ni wax que ko ci euh, premier ministre c'est un devoir de fidélité de loyauté de reconnaissance mais aussi de savoir-faire par bi jëm ci premier ministre parce que mom waxal na la ko bu tout tukki amul c'est parce qu'il a le premier ministre comme Ousmane Sonko qui est le meilleur premier ministre de l'histoire du Sénégal Sénégal 14 premiers ministres la am bon mën naa ne 13 parce que Sidiki Kaba il n'a fait que deux mois mais ci premier ministre yi am yépp Sénégal amul premier ministre d'envergure de Ousmane Sonko bu doon euh, bu les principes de la République je t'aurais dit que c'est un premier ministre et demi c'est le seul premier ministre bo xamantene instant bi il n'est pas maire li fal ci maire ci réew mi kenn xamul nu mu toll il n'est pas député li fal ci député ken xamul nu mu toll il n'est pas président de la république c'est lui qui a élu le président de la république c'est ça la vérité loolu nak ku mu metti ku mu metti wax deug yalla djemal dem naa ndox pour gaz bi sa sa xol fay ku mu metti ku beug na parce que fay am ah, da ngay deug ñu nan la Sonko euh, Diomaye mom wax dëgg yàlla dafa yaru da fa baax mais le problème est que son corps est un peu plus grand. Son corps est un peu plus grand. Son corps est un peu plus grand. Son corps est est D'accord, on est dans une république. Mais pour revenir un tout petit peu sur la conférence de presse qu'a fait euh, le président de la République, moins que la question de la magistrature, il avait promis que mon deux fois, la magistrature. Il accéder accédé pouvoir. Hmm. Alors, accéder mais il n'a pas donné une réponse vraiment complète ndax foi est wala le mais heureusement que la fois passée il a dit que c'est par euh, peut-être souhait de ces magistrats qu'il va siéger est-ce que Lolo aussi du indi benn a jàpp euh, si si si la population. d'abord euh, vous êtes journaliste je pense que nous Dangawara, d'abord factuel les faits sont sacrés et le commentaire est libre la sacralité des faits là, est convoquée. est-ce que yow projet bi Sénégalais donc vous avez un projet. non. Euh, Sénégalais cette question. non doucement doucement. il faut demander au président Diomaye je ne suis pas membre de PASTEF il faut demander au PASTEFien mais j'ai vu un document tu l'as vu vous avez couvert une conférence de presse euh, au cours de laquelle la coalition Diomaye présentait un projet au Sénégalais c'est à non Guiso, document bobu non kon wa xolatal sa qualité de journaliste ndax fi la xewé yow ngay né journaliste nga actualité am ci réew mi lu toll ni la première coalition intégrant la première formation politique de ce pays Pastef ñu woote conférence de presse pour présenter sen programme nga non non laisse-moi terminer da nga poser question da nga poser da nga da nga poser da nga poser question da ngay bàyyi ma tontu boo loo laajee nag da nga may ma tontu ma la coalition Diomaye seen siège bii nekk Liberté woo nañ fa presse sénégalaise bi présenter leen un projet boo dee yow gisoo ko d' accord nangul naa la ko mais tu as failli à ta rôle de journaliste. même rek même rek la journaliste au peuple sénégalais les sénégalais qui ont bien dit que ñoom gisuñu projet waxoo ak man dama la rapporter la question qu'a posée les sénégalais. est-ce mën nga déglu benn sénégalais waxu ko parce que sénégalais yi 54 pour cent Diomaye lañ fal. boo taxawee naan ma sénégalais yi nee nañu man ma ne la yow nee nga. ma ne la yow mii naan sénégalais yi nee nañu projet amul boo amee sañ-sañu ne sénégalais yi nee nañ te sénégalais yi waxuñ ko de yow yaa ko inventé man ma am sañ-sañu ne la fayal nga solo. les sénégalais ñoo ko génneel ma ban sénégalais la man du ma sénégalais. Oh, waaw pour cent yi duñ sénégalais. waaw léegi li des foo koy def. waaw waaw yow li des yow li ëpp nag foo koy def yow li ëpp foo koy def yow Alors, donc eux, c'est une fausseté absolue. La conférence de presse, elle est là, les vidéos sont là pour en attester. Kon waxo deug ben. le document est là. Le document bi projet pour un Sénégal juste, souverain et prospère à la disposition de tout le monde. Yow rek ko gisul. Alors vous avez nak Vous vous yow lay parce que vous ya né sénégalais yi nénañ man waxo deug wax waaw opposant nga wax té Voilà, voilà. Wa ñom gisuñu ko. Wa ñom euh, est-ce que mën nga déglu nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir lampe bi bu taxawé nga une ma du lampe jant la vous la dara ci magum ku taxaw Abdou Mbaw bu projet amut mom dafa projet bi projet existé sa yow la parce que da nga présenter Sénégal ay pré euh, euh, présenté duma la kon ki nga mom da nga dafa la duma nga né ko la kon yow doon donc comme moom ne lijjanti pas ba pare léegi au delà de ça yow da nga wax loo qui ne existé wul le président de la day le conseil supérieur le ko supérieur. Moi, personnellement en tant que juriste j'ai ma position au delà avant même président de di accédé au pouvoir Moi, la présence du président dans le conseil supérieur de la magistrature ne pose pas problème Je ne sais pas poser problème les pouvoirs de mu fi toogee ont vraiment mis mises, am carrément les coups de franc sur les carrières sur la carrière des magistrats C'est le problème je ne sais pas euh, échappatoire bu ñu trouver président bi da il koy conseil mais il le pouvoir de nomination bi def juge pour me leen di le procureur de Dakar le premier président de la cour suprême le premier président de la cour d'appel les neuf cabinets d'instruction qui sont Dakar ils ont tous appel à candidature Madame président a président le toog mais du parce que la nomination c'est le problème nomination bobu nga xamantene créé dañuy dem pause ñew ñu le la procureur Ndaw président bu amé sañ-sañ xol juge bu ko intéressé juge bu ko favorable procureur bu ko favorable teg ko ci kaw euh, instru euh, oh, koku ñew taxaw di def ay mandat de dépôt systématique ba ci ay xalé yu am 13 ans 2000 personnes nga fait leen mandat de dépôt parce que da nga bëgg lu neex président Macky Sall parce que moom mo la fa teg président légui bu ciaké pouvoir de teg bobu non nga xamantene les postes stratégiques appel à candidature lay doon mais bu boobaa day des ci conseil parce que dafa une obligation constitutionnelle pour c'est le président qui est le garant du bon fonctionnement des institutions comme le président le garant du bon fonctionnement des institutions vous yow bu bu fa jugee institution bi problème